appelé ñu ci yéene kaay yeeg seeni xët laata beneen journal bi dañu koy njëkkee ak l'observateur premier quotidien euh, fii ci euh, Sénégal mi xëy ak waajtaayug présidentielle 2019 ak lii mu tuddee euh, candidature déclarée dix soldats à l'assaut du palais voilà kon Pape Cheikh ni nga ko waxee ak li yéen kaay bi xëy fësal tey ay kon responsable politique ay leader yoo xam ni kon tey jii war nañu mën a taxaw kon dem ci élection yi ñu dëgmal présidentielle di soo mag ak président Macky Sall am yaakaar kon ñooñee tey. mën nañoo war a mun a am lu bëri ci élection yooyee moo xam sax ñi féetoo ci kujje gi booloo ga ñu nas ngir kon jëlee fii nga xam ni kon mooy euh, président Macky Sall yor réew mi jamono ji. moom président Macky Sall nataalam daanaka moo nekk ci xëtu yéenekaay yu bëri ginnaaw euh, euh, tukki nemmeeku ba mu doon amal ca dëkk yooyee démb le soleil ci la xëy tey ak nataalu président ñoo ngi liir Macky Sall en tournée économique. dans le centre ay kàddoom moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Soleil mon ambition pour le Sine Saloum voilà muy kon président Macky Sall Pape Cheikh euh, am ab tukki ne meeku gu mu door démb diggante Sine Saloum gis nga liggéey ya nga xam ni kon mu ngi ko fay amal inauguré route ga jugee ca Fatick dem ca Kaolack waaye it yoon ba bàyyee ko ca Dingiraay jaar Nioro dem ca Kër Ayib Kër Waly Ndiaye jaar ba ba Passy loolee kon doon ay projet yoo xam ni kon moom président Macky Sall euh, jëmal amal ko fa waaye it euh, del si rek di wax askan wi kon mu ngi seen wet lépp lu jëm si seen i euh, tawat kon taxaw na daal andi ci saafara. loolu moo tax yéen kaay bi di laas xëy ak ay kaddu président Macky Sall jëm ci tournée boobu la nga xam ni moo ngi ko doon amal ca Sine Saloum ne bradez pas vos arachides loolee la wax baykat yi. dëgg la ndax it euh, xam nga ko wax Sine Saloum wax it la nga xam ni mooy bassin arachidier baykat ya fa nekk boobu ak léegi ak la ñu bay ren takku lool jafe-jafe it ci njaay ma ak njëg ya nga xam ni kon bëgg nañ ko ci loolee euh, doon ay gàllankoor yu ñu ci nemmeeku kilifa it xam ko waaye la président Macky Sall le ci la sax euh, ñoom ñu dellu si ci mooy ne ren kon lañu ñu bay dafa takku euh, te lépp lu ci mënti am campagne bi ñu ngi koy wéyal kon daal jaaxle jotagul ndax jàpp na di dinañu indi saafara lépp lu jëm kon ci toogaayu baykat yooyu ñu mën cee dalal seen xel. semer les graines de l'espoir loolee itam bokk na ci ay kàddu président de la république ci tukki bu mu doon amal wax léegi ci. Sine Saloum libération itam ci la xëy ak nataalu président de la république ak ni nit ñi daree euh, ci euh, tukkeem boobule inauguration wu euh, route Fatick Kaolack la woon ñu ngi liir ci xëtu yéenekaay bi ci français le sermon de Macky Sall. voilà président Macky Sall def discours jëmale ci waa Sine Saloum waaye ci askan wi ci ay mbir yoo xam ni kon jot na ko fa jëmmal ndax it doon na tukki ne meek koo xam ne nii comme ni ko kilifa yi xamee woon sax ca présidence dina jege askan wi di soog ñoom tamit la nga xam ne ab programme la gu mu teg di koy doxal boobu ak léegi lépp lu ci am ak tolluwaay gi suivi gi kon moom mu mun kaa teg gët dina taxit lépp lu ñu sumb bokk na ci Pape Cheikh pont boobu nga xam ni kon a péage la dox diggante Fatick ak Foundiougne liggéey it ñu mun kaa wéyal na mu waree. yéenekaay bi di enquête di ñu xamal itam ni tukki président de la République boobu rax na politique rax itam économie looloo tax mu def ci xët bi ci français ni sur les routes de la campagne. enquête foofee la génnee ci xëtam gu ndax it bëri nañu ña nga xam ni kon ay analyste lañu observateur ba ci kujje bi ay politiciens yu jàpp ni kon dara lalu ko lu rek ab campagne goo xam ni door na ko donte sax ba fu mu toll nii euh, loolee kon coup d'envoi bi joxe guñu ko waaye gis kon politique moo ca laxasu euh, wute kon ab tournée économique koo xam ni kon euh, ñu féetewoo ci nguur gi sax ñu ngi koy xamal ni kon mbiri lool kon jàpp nañ ni daal dafa teel lool mu wàcc ci terrain bi di amal lu ni mel. tournée politique yéenekaay bi di Vox Populi euh, moo ñu ko xamal ci xëtam ci français Macky répond par une tournée politique. voilà ndax it xam nga ñuy yëkkatee kàddu jamono ji jëmale ci moom ci kujje gi attaku nañu bokk na ci leader bu réew mi Idrissa Seck ba ka nga xam it moo jiite la République des valeurs di Thierno Alassane Sall ba ci Thierno Bocoum ma nga xam it mu ngi ci biir réew mi foofee sax ci euh, salum kon di amalit ab tukki ne meeku ñoo ñëpp nag euh, jël jëmale ci njiitu réew mi jàpp ni taxawul baykat yi nekkee kon Macky Sall yi te profito ci tournée gi nga xam ni kon Pape Cheikh mu koy amal jamono ji wane la nga xam ni kon liggéey gu muy amal la wane ni kon mu ngi ci wettu askan wi fii ci biir réew mi. Idrissa Seck bokk na ci kàngam yi ñuy gën di waxtaane fan yi ci wàllu politique surtout ak yéen kaay yeeg seen i xët direct info moom la xëyee euh, ginnaaw nataaluk euh, moom Idrissa sek ñoo ngi liir ci xët bi le tigre est de retour et feul toujours. direct euh, xam nga nag ñoom it wax si kon leaderu réew mi Idrissa Seck kenn desul gannaaw euh, di ñëw rek ci euh, kon contre attaque yi nga xam mu ngi koy def euh, moo xam lu laal gaz bi ak accord yi nga xam ni ba tey mu ngi laaj daal ñu leeral lu ci am diggante Sénégal ak Mauritanie waaye it yeneen mbir yoo xam ne ni ay mbir yu ñu nas la ci ay projet moo xamit lu jëm ci petrol ak yu ni mel yéen kay bit xëy del si ci position nga xam ni kon moom leader bu réew mi Idrissa Seck ba tey mu ngi koy amal di laaj kon ay éclairage kilifa yi defaruk tali di VDN Sène bu Cambérène moom la le quotidien xëyee tey ak blocage bi nga xam ne ni nappkat ya na euh, nañu ko chantier yi ñoo ngi liir ci xët bi prolongement de la VDN ak Cambérène les pêcheurs bloquent le chantier. mel ni kon priorité ba Pape Cheikh mooy la ñuy yëngu su nekk di ci tedd muy napp gi waaye jafe-jafe yi takku nañu jàpp ni kon ay digg kilifa yi defoon nañ ko jëmale ko ci la nga xam ni kon moom la ñu bëgg waaye ba fi euh, amul lu dara seen xel ci engagement yooyu ko ba tax kon ñu taxaw daal lépp lu jëm ca VDN ba nga xam ni war na jaar ca seen gox kon ñu ne loolee tànk seen i tawat kenaan ci saafara ñoom taxaw nañu kon ngir bloquer liggéey yu ni mel doon loo xam ni nag ba tey mun na retarder travaux yooyu nga xam ni kon Pape Cheikh euh, mu ngi am ca gox ga. et ñu jeexal ak tàggat yaram ak yéenekaay bi nga xamee ni ci lay dox di euh, record premier quotidien sport euh, fii ci Sénégal et pourtant bi mu génneeg léegi yàggul xëy naak match bi nga xamee ni sénégalais sax ñu ngi koy préparé euh, tey ci ngoon lay doon ci diggante Chelsea ak Barcelone yéenekaay bi di ñu xamal ni match boobule ëpp na choc. voilà donc muy ab jongante goo xam ne dina am ca Stamford Bridge foofee ca Londres tey jii dem ci huitième de finale aller Champions League kon jongante yooyu club yooyee euh, ñi nga xam ni kon ñooy sportif yi ak képp koo xam ni kon football euh, lu mu bëgg la di koy xaar tey ji ci ngoon ndax jàpp nañu ab jongante gu am solo la rawatina star ya nga xam ñoo ca nekk. mu ngoog li ci des dañu koy bàyyeeg Mamadou Mohamed Ndiaye bi yegsee ci plateau bi ca kanam xóotal ko ci revue de presse bi